woote yi wuute na tab kat du fi jóg waaye kuy wuy ji na xam kay woote ak la woote kilifa yi toog nag sëñ Touba la wooteel bisam bi ko gënal ci ay bisam te ñu sukkandikoo ko ci mbindam ci kilifteefug Cheikh Sidiyal Muxtaar ayadahullahu wa nasara ci njiit ak taxawaayu rakam ju baax ji di xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Ahmadul Muxtaar ayadahullahu wa nasarahu and ak mboolem bokk yi and ak mboolem jabot gi kon ci ak njal beel moom la ñuy jëkk a jox mu ubbi jataay bi wax li waral woote bii nga xam ni moom lay woote sëñ tubaa wuutu ci magam yu baax yi ko ci jiitu woon waaye bu loolu jàllee itam dana jox kàddu gi sëriñ moodu baara moom sëriñ abdul xadim moom sëriñ baara ci turu mboolem bokki ak yoon wi waaye bu loolu jàllee itam dana jox kàddu gi sëriñ cheikh aliyun bakke mi nga xam ni mooy jëwriñu màggal gi di coordonnateur bi ci ndigalul Serigne Ahmadul Muxtaar ànd ko ak mboolem mi yëpp mu nekk ci kanam organisation bi di ko toppatoo ak ñi mu ko seqal waaye gannaaw loolu itam dana jox kàddu gi Serigne Cheikh Lo Daayira ci turu mboolem diwaanu diin bi lëkkale buntu kër Cheikh Mamadou Moustapha te taalibe yëpp nekk ci loolu mooy kaddu yi nga xam ne moo war a biral woote bisub sëñ Touba bii nu dëgmal incha allah mu war a tombe ak le premier ak la deux wala la trois ci weeru tubaab wii di ñëw kon dañuy jox kaddu gi sëriñ Ahmadul Mokhtar mu wax li waral woote bii muy woote sëñ Touba ci tawutu ci magam yu baax yooyu le. den fàttali bis bi nu jublu muy màggal Daaru Xuddoos màggal gi ñu defal sëñ Touba muy bis bi nga xam ne ci la matalib liggéey bi ñëw Touba bis boobu nag Cheikh Moussa moo ko sosoon màggal na ko diir at yu néew ay ko fi sëñ Cheikh di ko doxal ba jógee fi rakkam ci des di ko doxal léegi bis boobu nag bis bu mu fonk la noo ngi si woo ñëpp bëgg ngeen waajal ko tàmbali waajal tàmbali léegi waajtaay yi te lépp lu ci mat a def ngeen def ko mboolem na ngeen ko fonke woon ngeen gën koo fonk bu ngeen yaatal gan yi yaatal kër yi lépp lu ngeen ci man a def ci aw ñaq xalaat wërsëg ngeen def ko ci lépp lu ay mën na ko ci def lu ci waaye def yàlla dana ko fay ak sëriñ bi jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Cheikh Sidi al Muxtaar al xalifatul am li tariqati al muridiya ayyadahu llah wa nazara ñuy ñaan sunu borom mu yàggal ko fi ba li muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci yoonam wi ci njaboot gi ak ci lislaam lépp mu mën ko àggale ci sago te ànd ko njaboot gi yépp euh, kàddu yi nag ngi jóge ci sëriñ bi jëm ci mbokkam mi di taalibeem di léppam di Cheikh Sidi sëriñ Ahmadul Mokhtar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha lan moo waral kàddu yi euh, ye day yeesalaat ci moom ndigalul bisub sëriñ Touba bu mag bii nga xamante ni mooy dëgmal si di bisum màggalug Tuubaa gu njëkk gi ñu gën koo miin ci màggalug Daaru Xuddoos lii sababu màggal gi nag moo di dikkug Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul fii ci Tuubaa ginnaaw bu ab liggéeyam mate muy ndigal loo xamante ni daf ko joxoon taalibeem ba doomam ja muritam ba Cheikh Mouhamadul Moustapha mi mu yar ba def ci moom léppam ba mate ko sëkk ni ko bu ma fi bàyyi ko na nga ma jëlee njaareem yóbbu ma Tuubaa Cheikh Mouhamadoul Moustapha defe ko noonu yi ko Serigne Touba diggale woon kon bis bi na murit yépp xam ni bésub màggalug tuubaa la bésub Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul la waaye ab tool munta ñàkk jëwriñ jëwriñ ji mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi nga xamante ni moo andi woon Serigne Touba Touba loolu mooy mooy moom bés bi na ko ñëpp xam euh, bisub sëriñ Touba nag bis bi nga xamante ni ci la liggéey bi mate mooy bis biñ koy fayee dafa bindoon wax ni jaza u sil jalali wal ikrami nafa idaaya xaadalii maraam yi fay gi ma sun boroom fay ci li ma koy liggéeyal fay googu moo daq samay noon yépp ak képp ku bokk ak ñoom xalaat waaye yemul ci dàq ay noon muy muy tubaab bi ak képp ku ànd ak tubaab bi xalaat waaye xaadalii maraam yi la ci sëñ tubaa lépp li nga xamante ni mooy sama càkkute sama bëgg-bëgg it sunu borom jox na ma ko te kenn ku nekk xam na ni bokkoon na ci bëgg-bëgg Serigne Touba waxtu wu liggéeyee matee sëñ Modou Moustapha indi ko Touba yaqin jooju yi nag nga xamante ne sëriñ Touba amoon na ko ci mbirum boppam loolu la sëñ Modou Moustapha amoon ci mbirum sëñ ak ci ndigalul sëriñ Touba ko leeral nañ ni ko dina andi sëriñ Touba Touba ni ko sëriñ Touba sàkko woon ci moom mus ci am sikki sàkka moo tax kenn xamul ci taarix fu fu ñu ne sëñ Modou Moustapha toog naa nit di diisoog moom ci ni bu sëriñ Touba liggéey bi matee nan laay def bu yóbbu ko Touba mosu ci diisoog nit ndax am na yàqin bu wér ni li sëñ Touba bëgg loolu day am noonu la sëñ Modou Moustapha taxee woon ci mbirum sëriñ Touba bis boobu nag bisu fay la sëriñ tubaa li mu liggéeyal suñu boroom dafa bari suñu borom fay ko ci bis boobu fay goo xamante ni dafa jéggi na dayo mënee su ko xalaat nu mu toll sëriñ tubaa bindal boppam wax ko madatu ila dil arshi bil muntaqa yadi wali madd rabbil ajra duuna euh, euh, euh, duuna misaani mu ni liggéeyal na sunu borom euh, subhaanahu wa tabaraka wa taala jaare liggéey bi ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati sama loxo tàllal ko sunu borom ba bi sunu borom nangoo liggéey boobu li may fay moom moo ko yëkkati joxal ma ko boppam waaye bari na bariwaay boo xamante ni kenn mënu ko peese doona misaani la Sëriñ Tuubaa doona misaani kenn mënu ko peese ndax bari gum bari loolu ko suñu boroom di fay nag nga xamante ni sëñ Tuubaa ni bi mu demee ba yor yëfi boppam ni mu ko fas yéene def da koo leeral inni abduhu xadimun lin nabi naawiya nafa aqrabin wa ajnabi ku ma bëgg xam na xam ne abdullahi wa xadimu rasulihi la waaye li ma am ci jaamu yàlla ak liggéey rasulullahi suñu borom dafa dajale njariñu nit ñëpp jox ma ko kuy sama mbokk maa yor sa njariñ kuy sama jàmbur maa yor sa njariñ kon loolu buñ dajee mooy ñëpp képp koo koo xam ne nag li nga yor ñëpp nga ci fas yéene jariñ bu buñ lay wooteel bis ñëpp fas nañoo war nañoo ñëw sëriñ Ahmadul Maxtaar mi mi euh, sëriñ bi jox na ko ndigal ci yeesalaat woote bis bi ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Modou Moustapha doon woote sëñ Modou Moustapha moo ko sosal sëñ Touba woo bokk yëpp ñu ñëw ak taalibe yi daan ci diisoo di ci sot daan ci diisoo ak bokk yi di ci yeesalaat pas-pasu taalibe yi euh, di leen fàttaliwaat jaamu yàlla di leen tere itam lépp loo xamante ni suñu borom dina leen ko tere di sëñ bi nee na sëñ Modou Moustapha nekkoon jëwriñ ji ko mate dañuy tuddee référence mu mat ko sëkk ndax lépp lum la mas a woo moom sëñ Modou Moustapha boo dikkee da nga ko cee fekk te Pastef boo mën a indaale lu mu rëy rëy boo dikkee mu man la ca noonu la meloon moom Cheikh Mamadou Moustapha kon nag bu dee wooteel Serigne tubaab bis bu mel nii sos ko la ko tàmbalee ca moom ak ci ak njabootu muy dox ba ci si Amadou Maxtaar mii Serigne bi mu ngi feddaliwaat ndigal loolu ci moom fas yéene ko ànd ak bokk yëpp ak jullit yëpp ak ak taalibe yëpp di ñaan Serigne Touba agalenu ci te defal ko ci lu kawe njort defal ko ci mourid defal defal ci mourid yëpp lu kawe wa njort alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh billahi minash ashaytaani rajim wa salatu wa salam ala ashrafil khalq sayidina Muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi ajmain dina ba nu santee sun borom tabaraka wa taala no ngi julli ci yonent bi muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant khadimur rasul Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne moy borom magal gi nga xamne sunu wayjur bi ñu togal di sunu sëriñ di serigne Ahmadou Mokhtar di kilifa Daaru Xudus moko bëgg amal insha allah ci ñaar ñaari fan ci novembre di altine wala ñetti fan ci novembre di talata insha allah ñuy ñaan mu jottali ñu sunu ziar ñun ñëpp. njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp këri Cheikh Mouhamadou Moustapha yëpp mu ñu sunu siyaar ci sëriñ Sidi Ahmad sëriñ Sidi Mokhtar xalifatul am li tariqati tarixatil muridiya njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gi yëpp nag di sëriñ di talibé di cheikh ñëpp àndandoo def benn say nekk ci ginnaawam di yëgle magal gi di ko yëgal njabootu sëriñ Touba gépp moo xam mbokki sëriñ Touba la moo xam cheikh si la moo xam taalibe la ñu ngi koy yëgal Sénégal gépp di ko yëgal àddina gi yëpp ndax màggal gi dayoom mooy àddina mooy dellu si xaadimu rasul ci Touba. te Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne mooy waajuru ku tedd gi ñu toogal euh, moo ko jëkk a def euh, mooy ba mu indee xaadimu rasul jële ko njaareem indi ko Touba. te loolu yaakaar naa ne bu amul woon Touba du demee nii tey kon googu màggal gu mat a fonk la te ni ko sëñ Modou Bara waxee léegi xéewal la yu nu suñ borom indil inna allaha an'ama ala al-ibadi bi qadri qudratihi wa kallafahum min ash-shukri bi qadri qudratihim sunu borom daf ñoo indil xéewal ci kemtalaayu kattanam xéewal googee nag Cheikh Amadou Bamba firndeel na ko ci ñun muy xéewal gu mag a mag ci ñun laaj na it sunu borom cant guñ ko sant ci sunu kemtalaayu kattan cant ga nag mooy ñëw fekke màggal gi sant Serigne Touba mi nga xam ne moo nu defal lu nu am moo nu ko jox ñu sant ko euh, na ko Cheikh Mamadou Moustapha dige woon itam ne ku fi fanaan ci bis booba yëm dige woon yëpp ci ay mbaax ak yiw ñu man caa euh, duy ba doyal sëkk kon noo ngi woo Sénégal gépp góor a jigéen mag ndaw ñi ngi woo turux yëpp di fàttali ne ca bis ba dana am exposition boo xam ne ñu ngi ko tuddee suñu maam El Hadji Malick Sy di xalaat turux yëpp di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di woo waa Sénégal di woo waa diaspora bi di woo ñu nekk biir Afrique bàyyiwuñu kenn di ñaan ñëpp teew ci ñu duy bu baax a baax indi suñu ndab duy ba mu fees ndax Serigne Touba dafa fees dell ak xéwal kon yal nañu ci yàlla yóbbu ñu tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin kàddu laxasaayu fas ko yéenee def day mel ni kon nun taalube yi liggéey bi yëpp ci suñ la war a tegu ci biir loolu nag ñu ngi fàttali euh, journée médical bi nga xam ni war naa am ci màggal gi te mooy mboolem xeeti euh, fajkat yi nga xam ni ñoom la suñ borom dogal ñu man leen a toppatoo ba indi leen ngir ñu jàppale nit ñi toppatoo leen ci seen wàllu wér-gu-yaram incha allah danañ ko ci taxawal bu buñ ñëwee gannaaw suba la màggal gi itam niñ ko baaxoo amale waxtaan woo xam ni ab conférence la bu sët yi di def ngir dalal ci bokk yi waxtaanaat ak ñoom euh, soññante euh, loolu itam ci programme bi la bokk kon li ñuy def mooy ci turu diwaanul muridin bi ma waxoon léegi sëñ Cheikh Lo daayira ci mboolem turu taalibe yi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu kon moom lañuy jox kàddu gi sëñ Cheikh Lo noo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Ousmane Mbakke Gaynde Fatma mii yi diwaanul muridina muy daayira bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem bunti kër yi Cheikh Mouhamadou Moustapha yëpp muy soññ moom sëriñ usmaan muy mii jëwriñ ji mbooleem foo mbooleem fu fi ab daayira nekk te daayira ba bokk ci njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha nga xam ne sañ nañ laa soññ sëriñ Ousmane wax ne mi ngi lay soññ bu baax nga waajal bis bii ndax bis bi li ci sunu warteef mooy wa bu desee weer murit bu nekk yaadu na yitte joo amoon nga bàyyi ko te fas yéene waajal bis bii nga xam ne mooy bis bi gën ci nun muy bis boo xam ne la ca Seex Moustapha waxoon ñëpp dégg nañ ko te lool dong la ñuy wut kon nag sëñ Ousmane wax ne mi ngi soññ mbooleem fu fi ab daayira nekk ak koo xam ne bokkul ci dayra ndax am na ñoo xam ne yàlla def na bokkuñ ci dayra yàlla bindewu leen ñu bokk ci dayra baa ñu mën caa bokk waaye sañ na wax ci turu képp koo xam ne rek dangay taalibe fexe ba ñu fonk ko fonkeel goo xam ne daal benn bis du ko gën a kawe ci noonu ndax bis la boo xam ne mënunoo am benn bis bu ko gën a kawe ci noonu waxoon ne ku fi jant sowee ci li neex yàlla fenkee la ci li neex yàlla set nga wecc ci bakkaar te loolu ci bis boobu dong lañ ko déggee kon nag Cheikh sëñ Ousmane Mbacké Gaïndé ma mu ngi ciy woo ñëpp rawatina nag ba tey ak seex yi daayira yi nga xam ne dañoo nekk ci kër seex yi fu fi daayira mën a nekk rek te daayira ba sofu ci Daaru Xudoos rek ñi ngi lay soññ nga waajal bis bi xam ne ñun bis bi rek la am ah bis bi nag lu ko jiitu it ah am na benn set setal buñ ciy def boo xam ne ajjuma ji nga xam ne mooy mujj nga xam ne bu amee buñ ko bu bu jàllee màggal gi ñëw xam ne bu jàllee màggal gi ñëw màggal gi nii leen ko waxee altine lay doon wala talaata le 2 wala le kon ajjuma jooju ne ko ñëpp waajal fas yéene fas yéene bale Touba ba mu set wecc tàmbalee ko ci kër Serigne Touba gi nga xam ne mooy kërug boppam gi di kërug Darou Khoudoss ñu fas yéene ko bale ba mu set wecc jàll ci mbooleem quartier yi ci des ñu fa yéene ko bale ni nga xam ni la ko Cheikh Moustapha daan defee ndax Cheikh Moustapha moom ci boppam moo doon ànd ak mbooloo mi di di di di bale dëkk bi ngir waajal bis boobu kon nag ci ngi ciy soññi ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn sëñ Ousmane wax ne mu ngi séenu ñëpp ñëpp euh, bu ca buñ màggalee nag ba ca ëllëg sa ca 10 heures màggal ba ca ëllëg sa ca 10 heures mooy cérémonie religieuse bi nga xam ni mooy tëjteel màggal gi sëriñ Ahmadul Muxtaar ak mbooleem gan ñi nga xam ni ñooy ñëw ak fu ñu mën a bàyyi ko ak bokki dëkk bi ñu dajee euh, waxtaan soññante def tëjteel màggal gi ba suñu borom yóbbu waat nu ca wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.